nu comp asloof ci li gën a fës ci yéenekaay yi bokk yi mbaa jaamu ngeen am ñun dey moom la ñu fanaanoo ubbil ma yëglekaay bi standard xëy bind ci xëtam wu njëkk NPP Bakary Badji la bëgg mu doon la waxam maanaam candidat ci jongantey goxoxaan yi ca KMC bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi moom Bakary Badji jëwriñ des dénk tàggat yaram ak ndaw ji moo ko rek dëggal nee na languk NPP gi ñoo ngi waxtaan ak moom ngir mu doon seen la wax maanaam candidat ci jongantey goxoxaan yi eh, ca tundub mu teg ci ne NPP wax nañu ko dañoo rek bëgg mu doon wax waaye nag moom nangoogul balaa muy joxe nag tontoom day diisoo ak famem ba noppi mu teg ci ne bi ñoo ngi rek mi bi mu rek sumb ci ministre bi mu fii ak ay bés dina rek joxe ab tontoom ci làng gi ubbil ma yëglekaay bi ku def lu rëy am lu rëy maa la ko wax standard bind ne ronqañ tuuru na démb ci rek ba ñuy sargal ndem si yàlla Badara Aliou Diouf ca pencum ndawi réew ma moom dem si yàlla Badara Aliou Diouf démb ginnaaw ba ñu ko rek sargalee sargal bu mujj ci kanamu réew mi ca ca pencum ndawi réew mi jébbal nañu ko boroomam ca sëggee ca Banjul di démb nag seede yi benn la woon ku dëgg la woon ku jub la woon ku baax yaatu Adama Diouf di doom ci ndem si yàlla Badara Diouf jooloo na ñëpp démb ginnaaw ba mu rekk nettali jaar-jaari baayam ak suufee gu mu rekk suufeeloon boppam démb nag ku nekk ak la rekk neex ci moom waaye nag seede si yëpp benn la ubbil ma yëglekaay bi jëwriñ di yor tàggat yaram ak ndaw ñi ci réew mi daal dina xam le ne jëwriñ di yor yoon ak yoonal ci réew mi daado jàlla xamal na ko ne mën naa rekk dakkal contrat yes joxoon ñenn ñi rekk gi samp ay mini stadium ci réew mi mu teg ci ne yooyu contrat juróom benn weer képp la waroon def waaye nag yokkoon nañu ko ba rek ci at moom jëwrin ji daal dina xamle ne li tax liggéey bi yéex du ci rekk ñoom ndax nag nguur gi def na li ko rek war ngir rek jox ay ndaw réew mi ngir rek ñu wane seen bopp ci seen rek liggéey mu teg ci ne contrat yi des na ko rek dakkal ci rek lu bañ a yàgg te nag yoon dina ci rek am loxo ubbil ma yëglekaay bi ku yor kàddu Gambia Ports Authority daal dina addu ci rek féeri ba tagoon ca digg géej ci àjjuma ji Yankuba Mané série bi moo rek amoon jafe-jafe moo waral nag mu tak ci digg géej gi ubbil ma yëglekaay bi démb coow li moo doon ñëpp ñëw nañu ci state funeral bi ba mu rek des njiital langu UDP gi di Ousseynou Dabo moom nag daal dina indi ay leeral ci li waral rek fàddoom gi maanaam absent moom nag nee na jotul benn invitation ngir rek teew ca moo waral rek fàddoom gi maanaam absent gi mu rek absent moom Ousseynou Dabo ma nga woon nag ca rob ga ca rek Banjul Nding waaye nag teewul woon ca pencum ndawi ma moom nag nee na li waral ñëwul mooy nag jotul invitation te nag dafa gis ci ab mbind ñuy rek xamle ne sàngam la ñuy rek toog loolu nag moo tax moom nag demul mu teg ci na seeti ndebootu ndem si yàlla si Badara Aliou Diouf te itam nag teew na ndax nag du ñu tëj benn business nee na business yëppay dox mu teg ci ne du forcé ngir rek kenn waaye nag ñoo ngi ñaan askan wi ngir rek ñu génn bokk ci ngir rek seet seetal seen gox yi ubbil ma yëglekaay bi foore yaa bind ci xëtam njëkk njiiti réew mi Adama Boro daal dina sargal ndem si yàlla Badara Aliou Diouf sargal gu mujj démb ci kanamu réew mi rawatina njabootam daal dina koy nag sargalee raaya bi gën a màgg ci raayab réew mi ngir rek liggéey bu mucc ayib bu mu rekk liggéeyal réewam toppal xibaar yi ci Eye Africa TV kon gar mi